asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di jaar ñu def benn vidéo bu gàtt rek wane am ñu ñuy laaj naka la ñuy transférer ci Wozur maanaam de compte à compte d' accord lii compte Wozur la gis ngeen actuellement 4 dollars moom moo fi nekk ah léegi su fekkee ne comme par exemple bu fekkee ne dañu dem ba heure bu nga xam ne dañu war a def ay retrait yooyu la plupart bu fekkee ne somme yi ñu wésir demande bu fekkee amuñu ko dama jël compte bi exemple bi 4 dollars moo fi nekk ma war ko envoyé beneen compte léegi fii laay ñëw fii transfert to account wallet fii laay ñëw léegi fii ki nga xam ne moom nga ko war a envoyé IDM fii la war a nekk somme bi nga xam ne moom nga war a envoyé fii lay nekk léegi man damay ñëw fii ay kiliki damay jëli kooku ki ma war a bëgg a envoyé kii moom laa bëgg a envoyé léegi damay ñëw mu copier id am d'accord ma def ko fii waaw su fekkee keneen la aussi da ngay nit mën na la envoyé id am ci whatsapp wala feneen mu bind ko envoyé la ko en tout cas id bi id bi nga bëgg a envoyer fii nga bëgg envoyé envoyer 4 bi id am fii nga koy def soumettre après nga def valider jeex na waaw boo demee sa dashboard da ngay gis ne 4 dollars yi dem na d'accord donc lii kese la woon jaa ngeen jëf